ay euh, thème dañ fi dalal koo xam ne tout au long de l'émission day ànd ak ñun indi si éclairage yu am solo par rapport ak thème yi nga xam ne moom la ñu war a waxtaanee lu moo tax aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau euh, monsieur Thiat euh, du mouvement Y'en a marre salaamaaleykum euh, Thiat maaleykum salaam jàpp maa ngi lay nuyu. Mhm. di nuyu ñëpp ñu ñuy seetaan. Mhm. di wax ne que waxtaanu jàmm. Mhm. merci beaucoup Thiat waxtaanu jàmm ñu dugg suñu waxtaan waxtaan bi nag dina yaatu tey parce que dinañ wax si wàllum justice wax si wàllum élection waaye wax si loo xam ne yaakaar naa ni soxal na la wala sax soxal na euh, bépp sénégalais boo xam ne rek euh, bëgg na kii di mouvement Y'en a marre pour ne pas dire Kilifeu ak kii di euh, Simon Kouka par rapport ak problème bi nga xam ne am nañ ko avec la justice sénégalaise. dañuy doree rek ak violence yi nga xam ne nemmeeku neen ko au sein de l'arène politique wala sax ci espace public sénégalaise depuis un certain moment rawatina ba élection locale yi ben ko jàppee ci janvier deux ba tey euh, gis neen violence bi dafa commencé di bëri ba cadre unitaire de l'islam moom jël na bëgg ñi nga xam ne ñoo féetoo si wàllum politique bi euh, signé ko waaye euh, langum politique bi dafa am euh, ni nga ko apprécié c'est diversement apprécié noo jàngatee violence yi ak charte yi nga xam ne indi na débat fii Sénégal waaw <clears throat> ñoom ñi ngi ñi ngi ci seen rôle mhm. ñi ngi ci seen rôle suñu buggee créer charte <clears throat> pour woo tous les acteurs ñu ñëw signer charte de la paix mhm. rafetlu nañ trop seen initiative mais dañ jàpp ne ci sama xalaat bu gàtt boo xoolee état du Sénégal ni mu nekkee ci biir Sénégal dangay xam ne violence bi jógewul ci benn boor bu dul benn wàll. parce que bu ñu naxante. munoo fekk ni ko sama xarit bi di waxee sabar nga ñëw ci fecc yi ni leen bàyyi leen fecc mi te waxoo kii tëgg bàyyi tëgg mi. donc ku yow attaqué du problème maa ngi ñëw mhm. munoo fekk ku ñuy dóor muy jooy nga ne ko bul jooy fompal say rongoñ te waxoo kii dóor mu bàyyi di dóore. La réalité, c'est que les Sénégalais, dans leur composante, surtout ñi nekk ci ay médiation ki yooyu ils ne tiennent pas un langage de vérité à Macky Sall loolu mooy dëgg hmm. la seule personne violente wala la seule organisation violente c'est le Benno Bokk Yaakaar dans ce pays là ñoom ñoo yore armée ñoom ñoo yore police ñoom ñoo yore renseignements généraux ñoom ñoo ci teg yore ay nervi hmm. comment est-ce qu'on peut expliquer loolu yëpp état du Sénégal yore ko mu nekk ay jumtukaay yu ñuy utiliser ci kaw askan bi ñu bëgg dem seeti ñeneen naan leen kaa la ñuy signé ay pacte ay charte charte de non violence mm-hmm. la personne violente xam nañ ko ñi nga xamante ne ils sont toujours dans l'impunité xam nañ leen mm-hmm. mais limal limal les des gens de l'APR qui sortent Aliou Doungourou Sow lu mu fi waxoon jël leen ay jaasi ngeen ngeen rey képp contre troisième mandat bi est-ce qu'il a été mm-hmm. mais alors les quatorze morts du mois de mars pas d'enquête y a rien eu kon il faut pas qu'on mette la charrue avant les ba fi ñu waroon tàmbalee mooy que d'abord les responsables de ces actes là de ces précédents là qui répondent de leurs actes d'abord mhm. ça ce serait le premier signal fort et que signature Macky Sall du ma ci dóor sama xaj ku ne xam na ne signature am tekkiwul dara charte assise nationale entre les deux tours signé na ko bi mu ñëwee ci tiroir la ko def mhm. jënd fi milliard jox Amadou maxtar Mbow pour mu defaraat réforme ci institution yi bi bi mu paree këyit googu moom lañ booyalee ataaya keroog jël na fi xaalis jox Sourang pour ñu def ci code des miniers nangam a nangam bi mu paree caaf lañ ko laxasee ba bi ci mujj mois de mars xalif général kulli murit di kilifa gu mag ci Sénégal ak Afrique joxante nag moom kàddu respecté wu ko dina respecté ay société civile ak ay ay ak ay yeneen keneen nañ bàyyi caaxaan bi c'est-à-dire pour qu'il un vrai dialogue pour qu'il y ait un vrai débat il faut poser les vrais problèmes mënoo ñëw fekk góom bi nekk ci oom ngay faj ay tëstën la vérité nous sommes face à un régime et un état qui devient de plus en plus un état policier brutal prêt à tout et benn mbir mooy régler cette histoire de paix au Sénégal mooy na Macky Sall wax ne il n'est pas candidat aux élections de 2024 c'est la clé cette tension qui est là loolu kese moo ko wundu tu peux pas maintenir les Sénégalais ci benn suspense indi ce climat de tension partout moom la ñuy wane ay photo muy màttu moom mooy tëkkuwaate kan moo fi taxaw ne li fi amoon fi amati kan mooy màttu ci ay photo kan mooy naan bu ngeen takkee lu xonk gisuma ko c'est lui là qui c'est cet individu qui aspire à à ce qu'il y ait un climat une tension dans dans dans une tension sociale loolu amul secret de polichinelle la mm-hmm. donc kenn bu mu sonal kenn naan di wax na lii wala di wax na lii je suis d'accord avec personnes responsables qui disent que balaa maa signer cette charte là allez voir Macky moom mu signer cette charte et que cette fois-ci qu'il respecte sa parole et je suis tout à fait d'accord avec ñoom. donc vous êtes en phase avec Ousmane Sonko. mais je suis en milliard de pour cent en phase avec lui bu man la attitude boobu laay adopté mënoo ñëw fekk ki yore doole di ma dóor nga ne man bu ma défendre. il faut aller dire à Macky Sall la vérité il faut que les Sénégalais bàyyi boyal boyal beeg bogo bogo bi qu'on arrête Macky n'a que le résultat de ce qu'il mérite. Il n'a que ça, son opposition. Tout ce qui se passe dans ce pays, c'est parce que le pouvoir nous gère nous ne une opposition. Nous ne une opposition. Il n'y a pas de gentleman agreement. mais Tchad est-ce que tamit si violence bi certes du côté du président de la République wala sax si ñi nga xam ne ñoo féetoo au niveau de la de la paire dañuy seetlu ne carrément dañoo am ay discours yoo xam ne mënuñoo jàpp ne sax ay nit yu ñuy jiite ñoo ko am gis nga yaa ngi koy wax euh, Aliou Dembourou Sow même le président de la République euh, Macky Sall ba mu demee euh, fan yi ñu weesu rek Paris gis nga discours yi aussi mu yëkkatu mais du côté de l'opposition aussi dañoo gis à chaque fois ñoom tamit mun leen traiter aussi comme des saints aussi ñoom tamit dañoo am seen discours battre est-ce que le Sénégal loolu la soxla aussi. Euh, mais non mais non je suis pas d'accord avec yow je ne suis pas d'accord avec toi musuma gis dans l'opposition ku discours va-t-en guerre non un discours d'autodéfense autodéfense mm. oui ils se défendent avec les armes qu'ils ont ils peuvent pas se laisser massacrer parce que Macky son pouvoir xam nga gars yi ay Macky c'est un génie politique man je dis que c'est pas un génie politique mm-hmm. génie mooy kuy jëmale réewam kanam il faut ñu tomber un génie c'est celui qui fait progresser son pays loolu mooy nit loolu mooy loolu la ñuy woowee génie mais ay tappale njuuj njaaj nax xëcc fii corrompre fële jënd fële tëj fii kaso loolu mooy génie politique mais kon kon kon dans le monde y a pas il est le seul génie au monde et pourtant Sénégal moo gën a dellu ginnaaw un génie politique boo xam ne le réew le pays tarde à décoller il n'a qu'à mettre son génie au service de la nation Il n'a qu'à mettre son génie au service du peuple sénégalais, au service du travail. Pas au service de complots, de théories, de, de nahanté, de n'yudnyak, de yufutchahan. Si l'on l'a dit, dis-moi ben opposant, Boutahou au Sénégal, il aurait un discours va-t-en-guerre, sans qu'au préalable, il a été provoqué par un autre acte plus va-t-en-guerre, ou le même un acte, une déclaration de guerre venant du côté du pouvoir. Amour, nous dans l'histoire. Je n'ai jamais vu un opposant, dans ce ñu jëm ci élection local qu'il y ait plus de cinq mille xaw ma lan ko localité amul benn liste bu Benno Bokk Yaakaar bu préfet refusé budul yi waa opposition. peut-être ñoom dañoo am maturité vous pensez que kon yow nga yaakaar ne yow mu Khalifa Sall rek pour ne citer que lui ba muy politique Macky Sall xalaatul politique même moom Khalifa Sall il était du temps du PS mais je dirais même pas Khalifa Sall je dirais Barthélémy Dias bi nga xam ne moom mooy moroom Macky ci âge ba muy politique nekk jeunesse socialiste xalaatagul def politique. nga ne ma